li tax buñ nee la marabu de Ousmane Sonko ñëpp ne sëriñ aboo jóob lu tax lu dal Ousmane Sonko ñëpp ne Serigne aboo jóob lu tax buñ gënee dégg Ousmane Sonko ñëpp ne Serigne Abo jagle la cër la waaye am na lu muy signifié jërë ngeen jëfu mbokki internet Allô Sénégal Serigne Abo Diop sëtuk Serigne Massamba Diop sàmm bi le marabu de Ousmane Sonko biñ ko ko dalee wax bi mu ko dalee dégg bi mu ko doonee du tey looloo waral nag buñ nee la marabu de Ousmane Sonko rek ñëpp ne Serigne aboo Diop la ñeneen ñëpp numéro 2 lañ waaye sëriñ bi tey dañoo recevoir ñu fekk ko tey ci bërëb bu yéeme fekk fi jalu kaamil fekk fi kaamil yu baree bari fekk fi sijaada yu baree bari fekk fi ay kurus yu bari fekk fi itam ay mbaxana yu bari sëriñ bi am na lum ci jublu dinañ ci waxtaan ak moom waaye tey sëriñ bi dama dee lu yéeme lu daw yaram te tey bëgg naa mu waxtaan ceeg sénégalais yi sëriñ bi Ousmane Sonko dañoo toog 30 jours mooy fanweeri fan jotuñu ay information ci moom coow jug ñu ni est-ce que defuñ ko comme sax ni ñu def Karim Wade génne ko réew mi ci silence te kenn yëgul mu bañ a bokk élection 2024 yi sëñ bi am na lu mu gis ci mbir moomu gis na ni Ousmane Sonko ñi ngi koy utal numéro 2 ndax parrainage yi gisuñ ci Ousmane Sonko ñi ngi koy utal numéro 2 naan kan mooy bokk 2024 ku dul Ousmane Sonko loolu lépp sëriñ aboo Diop tey dama naan mer la indee émission lay dikkee ci émission bi ndax bam ñu waxee ni bennoo da daf damay tas bennoo yàgg na yàgg nañ ci nag ndax candidat bennoo lañu xamul ba léegi du Balaam keneen la Aly Ngouille Ndiaye laam keneen ak keneen la tey dina leer ndax sëñ bi bennoo ci ba muy boppam lay tas benn yoon dañ koy bàyyi moom sëriñ Abo Diop ndax tey dañ ko fekk ci benn mbir mu am solo lu mu doon liggéey te mënu koo yàq waaye xas nañoo dugal rek faw ñu waxtaan dañ koy bàyyi mu nuyu mbokki internet yi nga xam ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala wa mawlaana muhammadin il wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwaan wa tamkin maa ngi nuyu mboolem jullit nuyoo ba gën a rafet te gën a yàlla ci diggante jullit ak moroomam te moo di wa rahmatullahi wa barakaatu di leen fay nuyoo di sant bu baax ci sama jataayooti ak yéen ndax seen liggéey bu rafet ndax man dama leen a taamu. waaw dama leen a taamu ngir seen liggéey bu rafet. junniy junniy sit ñoo ngi fi waaye seen liggéey bu rafet. maanaam ak seen sawar ci tasaare lu baax moo tax daanaka samay génn ñu bari dan may ñaan sax ba sonn mm. waaye daanaka ci seenu sit rek laay laay bëgg di génne. maa ngi sant bu baax itam ci jataayooti ak yéen ndax sama jataayoo ak yéen li may wax waxtu wu nekk mhm. lenn rek moom moo di sabab bi mhm. te moo di li ma yàlla sédd ci xam-xam ma fas ci yéene dimbali képp koo xam ne tane naa la ca Lamine doomu aadama bu nekk li yàlla def ci yow rek ci nga mën a dimbale sama morom doomu aadama te ñuy mhm. ëpp ci doomu aadama yi dañuy dem fu nekk di fa sonn lool ngir di fa yaakaar xam-xam fu ci bari lan fa doon yaakaar wuute lool ak lan fay fekk. Oh. te ndegam yàlla may na ma ay xeeti xam-xam yoo xam ni gàllankoor yu man yu doomu aadama bi mën a toll fii ci àdduna. waaw mën naa ko caa génne ci xam yooyu. àllaaxira nag la dimbali doomu aadama bi moom moom moo koy góorgóorlul boppam waaye xam-xam yi ma yàlla sedd fii ci àdduna gàllankoor yi doomu aadama mën a toll. yàlla may na ma mën ko caa génne. moo tax euh, dañu toog di ngeen ñëw fii. maanaam ngir ñu waxtaane te xam-xam boobu ma yàlla sédd bari lool nag lu ñu war a waxtaane ci réew mi Lamine bari na lu ma naqar lool ci wàllu réew mi balaa ñu balaa ñu ñëw ci lii la naqari ci réew mi waxtaan bi li muy tàng sëñ bi dañ laa fekk ci beneen melokaan boo xamante ni daawuñ la fa fekkee fekk la ci melokaan boo xamante ni xaal la nga nekk ci barab boo xamante ni barab bu yéemee teg say kaamil yu baree bari ba tax mën naa ni am na yoo xamante ni permettre ñu ñu jël ko tey ci néeg dama fi fale di fi follee yàlla may na ma xam-xam boobu. dama fi dumaa di fi yare nit. liñ fi gis may nañ ko de. loolu nag ñi yàlla def ñi seen loxo nekk ci réew mi. defe naa ne am na luñ ci xam. Lamine daanaka tey jii sax dafa am bi biddiw ak bës yoo xamante ne si bu ma ci tollee li may gën a sawar. moom mooy dindi gàllankoor. ci bés yooyu nga ma toll. mbaa xam nga ne Lamine gàllankoor yi doomu aadama bi mën a toll fii ci àdduna waaw fu mu mën a nekk ci àdduna bu ma xoolee teng loxo mën naa koo digal ab lim gis nga piis yi perkal yi daanaka mat na téeméeri piis eh? mën naa koo digal ab lim ci piis yi perkal kasaalika ab lim ci kaamil alquranul karim kasaalika tam ci ziyaada ak mbaxana yi nga fi fekk waaw barab bii ñaare eh, ñi ma daanakaa ne bare na tey jii ñoo xamante ne si ni génn nañ ci gàllankoor ba doon seen rajoor famille. Eh? ci bërëb bi la la la leen taxawee. bërëb a ngi nii itam boo xamante ne si ni wax dëgg yàlla ku nekk di gël na ma fi nag ci ñoo xamante ne si. amul fi du fi dugg euh, xëy na euh, xëy na daanakaan yi ndax yaa ngi ma gis léegi ma doon binde benn euh, daaju yéeme. waaw daaj yoo xam ne daanakaa ne du xalam bii sax wax dëgg yàlla. daanakaa du xalam bii sax wax dëgg yàlla waaye daal Mouhamadul Amin. waaw réew mi ñoo xamante ne si ni. Mhm. na ñëpp seere ni. waaw. nañu dugg ba ci biir waxtaan wi. sëñ bi falak folli réew mi sëñ bi falak folli ni nga ci mel ak taal ni sëñ bi. gaaw na la gaaw goo xamante ni dama naan est-ce que amul lu mu àndal. Mouhamadul man daanakaan ni damay faral di wax nii gis nga ñaanal nit ba ay gàllankooram den rek loolu du du kii wala dindil nit cat wala gàllankoor loolu du dara. Uh-huh. nit ki da nga koy samp. man li may sampe doomu aadama mooy as ismullahi al ahsam turu yàlla ismullahi al ahsam xam nga yàlla daf ni walillahi lasmaul husna fadduhu biha am naa tur ya gën rafet woo leen ma ci uh-huh. turu yàlla yooyu nag man doomu aadama soxna bu mu mën a am am naa xeeti turu yàlla yoo xamante ne si ni am na waxtu woo xam ne wu may jël bu ma ko jëlee ay lim ci kaamil wala ci piis yu perkaal boole ko tur yàlla wu méngool billaahi wal quraani xasim ba ma ko ci taxawoo balaa mat fukki guddeeg benn dana yëg ba wér li ma ko taxawoo te dana ubbi ko ba mu yëm ko ci kattanu yàlla mi uh-huh. meeng baa xam xam nga lamin xam-xam dafa dafa dafa yéeme borom bi nee na xul xal yastawi lazina yaxlamuuna wala lazina laa moon uh-huh. ñi yam ñi xam ak ñi xamul mënuñoo yam ba mukk lamin yaa ngi ma fekk tolluwaay bu yéeme li muy yow moo tax ma nangul la ko waaye fii néewaana sax nit di ma fu fekk waaye yow man nga maa fekk fu ne man nga maa fekk fu ne Lamine mbir a ngi nii moo xamante ne si nii mm-hmm. billaahi wal xor xam nga euh, leget boo ko sànn woon ci géej du musa du musa nuur day fay rek waaw waaw waaw <laughs> junj la de sëñ junj la maanaam doomu aadama fu mu mën a nekk ci àdduna fu mu mën a nekk ci àdduna laa la wax mm-hmm. ko mën a samp ba mu kawee lool ci dara ji mu bokk ci kàttanu yàlla mi maye mbaaxam. Uh-huh. yàlla daf ma maye nu nekk. sëñ bi lii ma daa gi nga ko doon bindee. li gën a yéeme mooy. man dafa am damay taxaw doomu aadama. ci wàllu ismila ahsam di ci taxaw doomu adama ci wàllu xalwatu. waaye ci misaal man yàlla dafa ma may ci wàllu xam-xam bu ñuul. xam-xam bu ñuul nii yàlla daf ma ci may mayin woo xamante ne si ni daanaka def gis ko léegi léegi léegi léegi. gis nga. damay yegg sax ci xam-xam foo xamante ne si ni ñu baree bare li ñu mbubboo di wax insha allahu taala man dama dama gëm ni mm. ñoon ci caaxaan la ñu nekk ba ba sax ñi nga xam ne dañuy wax wàllu faj ci wàllu kattan ak wàllu mën a doon ngay taxawu nit ki ngir ay gàllankooram jënd nga naan ko insha allahu taala bu ñu jaaree fii dëgg la ndem som na yàlla parce que yàlla moom moo wax ci alquran ni wala taqulanna li shay'in inni faa'ilun zaalika ghadan illa insha allah mm-hmm. maanaam bul wax dara ni dinaa ko def mm, lu dul ni na yàlla waaw xam nga loolu yàllaa ko wax. waaw waaye ci wàllu faj. wàllu faj. waaw maanaam loo ciy defal doomu aadama bi daf ko war a teg bët jëxërën. wala ci dindi gàllankoor. loolu jërul di di di nëbbatoo ci dem som na yàlla ak yooyu. ndax lu xam-xam bu soob yàlla ba noppi la. Lamine. nit ñi nañu de nañu dem ci ñi yàlla may. ñu sàkku ci ñoom ñaan. yàlla daf maa may xam-xam. Lamine daanaka bu ma dee wax sax xam naa da nga ci ñëw ay xeetu seet yi bu ma gisee xale yi naan loolu loolu ay caaxaan. sëñ bi wàllu seet tamit faaw ñu njëkkee ndax. am damay gis doomu aadama bi fu mu mën a nekk ci àdduna bu fataa teg loxoom bi yónnee ma ko lépp lu nekk ci moom ci gàllankoor ci kattanu yàlla mi may ak mbaaxam dinaa ko wax. am na ku ma ci doon waxtaan mu ni ma sëñ Abo ku mu rawee ci seet la la ma la wax maanaam képp fu waaye doomu aadama mën a nekk ci àdduna bu ma gisee teg loxoom bii. lépp lu nekk ci moom ci gàllankoor waaye ànd ak lépp lu koy saafara ci kattanu yàlla mi may ak mbaaxam dinaa ko wax billaahi wal quraanil xasim li wér te wér de moo di su ma ko defalee nit ki dafa yaakaar ni daf ma koo xam sax. seet gi day génne sax gàll ga saafara ma la wax maanaam lépp tolluwaay yoo mën a toll sa adduna dama la koy leeral. man nag sama seet muy ma ko kenn ku ma fayut du ma la ko defal. déedéet ku ma fayut du ma la ko defal. waaye sama xaalis du fanaan àll nag mën naa ni la téyeel seet gi lii laay seete mën nga ko téye baa seetal la ba noppi nga door ma koo yónnee. waaw bu ma la seetal xanaa kon xam nga ni kon xam-xam am na de. nangam laay seetal téye ko baa seetal la sa sedd nga yónnee ma ko loolu mooy xam-xam dëgg. Lamine nag ci seet moomu ci gis boobu may gis ci laay jaare nit fu nekk. Uh-huh. Lamine bu goomu aadama yi xamul dafa bari yàlla dafa bind te yéeme. wallaahu wallaahu wallaahu yaxanam wa antum laa taxlamuun yàllaa ko wax. Uh-huh. yàlla xam na te yéen xamoo leen te yàlla na xam googu mu xam ci la xamale ñenn ci ay jaamam. wa taqullaaha wa yuxallimukumullah ragal leen yàlla yàlla xamale leen boppam. Uh-huh. moo tax ci teng loxo bi xam naa ci lu nekk Lamine Ba xam nga bari nañ ñuy jàkkaarloog man dem nañ fu nekk ci àdduna ñu jox leen lu nekk ni leen sangu leen takku leen taxul ñu gis seen bopp benn changement xam nga la ko sabab man nga dem sax ci nit mu la jox ñaan yu baax gën la tëj maa day taali déglu ma ma leeral bu baax déglu leen ma ak xam-xam man ndax man ñi am xam-xam ñoo ma gën a mën a jariñu sama xam-xam parce que bu may wax koo xam ne sa xam-xam yëgg fa ngir ma déglu ngir nga déglu ma dafay jafe xam-xam bu wér laay wax boo xamante ne si da nga ki koy wax dangay ngay xam ne kii amantuwul xam-xam dafa am xam-xam Lamine ñeenti tabixa yi ñoo am muy suuf ak ngelaw ak euh, sawara ak ndox ci misaal nit ki faw yàlla sédd ko ci yooyu benn ci misaal nit ki tabixaam bu doonoon sawara mu ñëw nga yëkkati ndomba ga a baax wala jaara ba gën a baax wala cangat la gën a baax jox bu koy sangoo sax day gën a dellu ginnaaw mi ndox di ko sot safara nan nan la safara way def fay ñu baree baree baree bare ci ñi may seetaan ñoo ngi dund loolu jëfandikoo nan ñaan ba sonn mënuñoo gis seen bopp benn njariñ ñaareel ba mooy nit dana dem ci barab maanaam ñu ko ay ñaan ba sonn du gis moom boppam dara wala ñu koy ñu koy saraxeloo ay mbiram sax di gën a dellu ginnaaw mbaa xam nga ni nit mi ngi saraxelu loo xam ne da koy gën a alak sax waaw saraxe ñaari yi ñoo am saraxe ngir yàlla ak saraxe ngir aajo. waaw boo saraxe ngir yàlla loo saraxe baax na waaye ngir aajo boo xamul la ngay saraxe say mbir tëju ba faw oh. misaal mu gàtt xam-xam laay waxe lu ma la wax dama fekkee misaal. réew mi ñi ëpp ñi tappale naan dañoo mën a faj rab. di woo lu mel ni jigéen nga xam ne léppam awra la ñu koy xëpp ay saafara loolu fajul rab. ak njabar rek la. rab ak sam xam-xam bu wér te wóor daanaka li ëpp kaamil yi nga nga ëpp nga ëpp ñetti téeméeri kaamil. waaw mooy ci wàllu rab ak ci piis perkaal yooyu ci laa koy dindee ismu laay axsam fu doomu aadama na nekk ci waaw bu defee nag tey nit ki mën na am rab ñëw nga ne ko saraxel soow wala nga ne ko saraxel rab sa sa saraxel ndawal kooku jinne jinne xam nga mooy rab jinne xam nga lu mu gën a bëgg dara ki koy saraxel xam nga ni loolu du mu sa tàggoog moom moo tax lamin nit ñi ndeysaan bari nañu sonn lool gis nga nit am na fu tabi xam di nag sax loo xam sarax rek mën naa defar mbiram jërul sax muy sabab lu ci ñaan bu xamee xam rek ay mbir baax ay mbiram baax ba faw ay mbiram mbaax ba faw ma ni dem leen ngeen seetlu ji ci ñi yàlla may te ngeen wattandi ko ñii seet yi béjjën ki xaaw ak pettaaw parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla rëbb na ñii seeta ci béjjën ki xaaw ak pettaaw waaye ànd ak ñay dem ci ñoom seet am na solo waaye dem leen ci ñii xam-xam ñi nga xamee ne xam-xam bi ñuy jëfandikoo xam-xam bu lislaam gërëm la xam-xam boobu nag la ñu yàlla sédd ci xam-xam boobu sëñ bi da nga dem ba découvrir ci luy faj néew kattan lu bu dégg reen ak xob ak saafara yi nga xamante ñu ngi koy xam. ci alxuraan nga ciy faj néew kattan sëñ bi. li ma la wax ñaari ayat yi laay faje kattan yàgg naa ko wax te yàgg naa ci dimbali nit ku nekk nag dimbali naa ñoo xam ne xamul sax foofu faf luy wolof. waaw muy ñaari ayat yi innal quwwata lillahi jamihan ak wayasidukum quwwatan ila quwwatikum. waaw su ma ko bindee ab lim bu xaw a bari la nag moom ñaare ñu ko fi xaw a soxla sax listu la doon su ma ko bindee nit ki nawalu nag wu góor la koy la koy toggee bu ko jëfandikoo dina am kattan ba mel ni ku toll ci ñaar fi kattan ak juróom ba ba muy faatu dootu tàggoog moom. allahu akbar. Lamine xam-xam dafa am. ci alquran nga koy jaar. ak lépp lu mën a gàllankoor doomu aadama bi. ba sax ba maanaam lurut bu mu judduwaale. waaye ki am néew kattan ak lu ko ko mën a teg ba sax awraam di dellu xam nga awra wuy dellu rab sax dina koy faral di def. ba tey itam ñi amee ci wàllu dana leen gàllankoor ba ci wàllu ba ci ñi amee jabat ñi amee jabat wàllu néew kàttan daf leen di faral di xaw sama lool ma ne li may se li may li may liggéeyal loolu maanaam turu yàlla la alxuraanul karim lu ci mën a gàllankoor doomu aadama bu jëfandikoo sama mbir billaahi dina ko am ba ba muy faatu dootu tàggoog moom waaye sëñ bi wàllu nopp yaa ci daan liggéey mbir mu am solo fan yee nag posoon nga ko waaye wàllu nopp nit ñi sénégalais dañoo bëgg nga tàmbaliwaat Euh, dafa bari lool ñu ci am yaakaar ci man ci wàllu woowu donte ni yàlla def na te jii maa ngi sant yàlla ndax bari na ñoo xam ne ni suñu demee ba gën a jamono sax di doxi seeni yitte. daanaka mën naa ni eh, sama xam-xam la ko yàlla jaarale. ndëmuwuma nag damay sant yàlla ndax wa ammaa bi nixmati rabbika fa haddis xéewal yi la yàlla defal dee ko nettali hmm. waaye Lamine bari maa ngi wax léegi ci njëlbeen ni bari na ñoo xam ne bu ñu doonee seen rajoor famille ci mën mi la ko yàlla jaarale bari na ñoo xam ne bu leen yàlla defee kilifa ci jataay yoon nekk ci mën mi la ko bari na ñoo xamante ne si ni bu nu jiitee aw askan sax maanaam askan wa topp seen ginnaaw sama xam-xam la ko yàlla jaarale donte ba ma leen di samp ba ma leen di taxaw taxawuma leen woon ngir ñu noot seenu askan waaye war nag wor nag moom naanaam képp ku koy def na nga xamante ne si ni yàlla moom eh. ah wallahu laa yuhibbul saalimin xam nga dégg naa ko ci sa njëlbeen ngay wax lu ni mel. waaw di wax sax ba ni bennoo bokk yaakaar la xuma bennoo tas yaakaar. waaye man ñoom daanaka du du ma mës a sori seeni mbir. ndax boo leen xoolalee alxuraan di wax ni. tahsibuhum jamihan waaye wa qulubuhum satta. waaw maanaam da nga leen njort ni dañoo bennoo waaye seen xol mooy gën a taqalikoo luy taqalikoo. est-ce que du looloo waral worante bi seen biir. dañu bennoo ngir maanaam maanaam ngir maanaam génne Ousmane Sonko waaye seen xol sax demut bay ànd. gis nga Lamine. waaw dégg naa ba ngay wax dégg naa la nga wax sax sa biir wax ba ni. waaw ku mel ni sama waajo usmaan Sonko. waaw Lamine loolu sa waratu ci wax wax naa ci waxati ci. ci Ousmane Sonko. bi nu koy jàpp dafa fekk ma génn xalwatu li ma waxoon ñëpp teg nañ ci seen bët. waaw. billahi lasi laa ilaha illa huwa xayruhu balaa yàgg dana génn. ci kattanu yàlla mi may mbaax Ousmane Sonko génn. balaa yàgg dana dana génn te li ma wax maa ngi koy seeraloo yàlla seeraloo ma leen ko yéen ñi jàkkaarloog man. sama bopp doy na ma sëkk sama digg sama borom. te wa kafa billahi sahidan yàlla doy na seere. maa ngi seeral yàlla ni balaa yàgg yàlla dana ko génn fii mu nekk ci kàttanu yàlla te bu ko génnee dana ko jox daraja joo xam dana yéem ñëpp ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. gis nga ñi fi nekk. daanaka ñoo ngi pexee nun man. wa makaru wa makar allah waaye wallahu pour Ousmane Sonko rek to ñu nekk waaye yàlla mooy ngën gi aji pexe te yàlla gis na lépp gëmmun na lawut laataa ko doo sinatun walaa nawm Lamine Ousmane li ma ci waxoon démb ak bërki démb laa ciy waxatee looy wax ñi yaakaar ñi ma yàgg topp xam nañu loolu waaw Lamine man samay wax mosul des ginnaaw réew mi réew waxee naa fi lu ne waaw réew mi waxee naa fi lu ne wax naa fi lu nekk man amatuma lu ma fiy prouvé parce que maanaam ñëpp ñëpp xam nañ xam nañ bu baax. bu buntu yi tëjoo yaa hmm, bëgguma di ci waxati wax naa li ma ci wax ba noppi. ñi may xam te xam ko daal moo di. mooy ñëpp ñi nga xam ne dañu yaakaar ne seenu réew mën na baax ci Ousmane Sonko. waaw te man maa génnoon. ci gàmmu weeru gàmmu. ma ni leen Macky Sall ak gàngooram seen it yëpp moom may fexe ba jàpp Ousmane Sonko dana ko jàpp nag. waaw te boobu kenn ni yaakaar ko woon fan yee maa génnaan ni leen bis yu yàlla dana def dana dugg ci biir kasa bi. léegi man mii maa génn maa génnaat wax leen ni leen. waaw maa ngi seeral yàlla nii la. yàlla dana ko génne léegi balaa yàgg. Ousmane Sonko am na ñu jàpp ni sax génn na ba pare. Macky Sall nag. maa ngi seeral ñëpp ni leen. Mhm. maa ngi koy ragalal loolu mujj gu ñaaw. moom soo nekk excellence. mujj gu ñaaw. maa fi génne woon sandal bu yéeme. waxoon ci li ma ciy wax Sénégal yëpp dégg ma. waaw. Lamine. bi baat da ngaa bëgg a taal sondeel bi. Lamine ah yàlla de dafa yéeme. waaw waaw yàlla dafa yéeme lool. yaa ngi ci mujjug Macky sàll sëñ bi. waaw yàlla dafa yéeme lool. ak gàngooram yéeme lool. Ah, man euh, tiital naa ko lool. tiital naa Macky Sall lool moo ko njabootam. xam nga bu ma déggee sax ngeen di wax 2024 ji nangam dégg naa ko léegi ngeen naan waa benn candidat ak waa euh, Pastef ñi pose de man maa ne. waaw élection 2024. waaw billaahi wal quraanil xasim feeñagut ci man ni dana am. gëmoo ni 2024. wax naa ko lu ëpp fukk yoon laa leen. te tey jii laa ci mujj wax. nañu dem ba 2024 nga gis fa élection ak jàmm incha allahu taala. lan moo waral loolu Ousmane Sonko lim dul bokk wala Ousmane Sonko. yow mës nga gëm ni pare woon na ngir tànn kenn ci ginnaawam. déedéet waaju ko woon sax. waaye daanaka loolu du ma ci bëgg di xóot. du ma ci bëgg di xoon mukk keroog ba ma jugee màkkatal mu karram li ma wax leer na man li ma wax daanaka ku ñëw seenu site lépp la fay fekk man yéene sama site préféré nanu jàll ci waneen wàll lamin nanu jàll te nanu tëj waaw Ousmane Sonko am na ñu ni jamono ji génn nañ ko réew mi def ko comme ni ñu def Karim Wade am ñu ni sax Ousmane Sonko est-ce sàkkaluñ ko pexe pour sénégalais yi bañ a jot ci moom balaa 2024. Ousmane Sonko moo ngi fii ca moo ngi ci jàmm. te wallaahi wal Qur'aanil Hakiim Macky Sall bu ko jëloon sànni ko ca tëneelu géej ga. moom li ma wóor te wóor te man ko seeral yàlla ak sama kurus gii. ak barab yii nga ma fekk. waaw Macky Sall bu jëloon Ousmane Sonko sànni ko ca tineel ya ca géej ga laa wax de. moom du faatu ci géej ga. maanaam du fa faatu mukk yàlla dana dogal mu génnaat yàlla moom ma woon jëxërën. waaw jëxërën laa la wax de. ni maanaam maanaam dana génn ci jàmm te saa dana ko jox jox dara joo xam dana yéem ñëpp. moom Ousmane Sonko. li ma la wax kay dégg li ma la wax. fa man saa a fal yuumin wa man saa a fal yakfur neex nga gëm kum neex nga weddi waaye li ma wax maa ngi koy seeraloo saa borom subhaanahu wa taala te ñi ma ñi ma yàgg topp xam nañu ma Lamine jàll laaj ma ci waneen xam-xam laaj ma sama wàll xam-xam damaa yàgg damaa bëgg a dimbali ñi tane ci xam-xam ñi ma bëgg nga dimbali leen ci wàllu këyit laa ko bëggee ndax këyit yomb na la de déggoo li ma la wax am réew du dox jëmmi place du dox jëmmi këyit du dox jëmmi doomu aadama mooy dox dama ni doomu aadama yow mi may seetaan ba dara alal du taxaw sa loxo ku la dig sax ngir bëgg laa dimbali day mel ni daf lay jafe looy lijjanti waxuma rek wàllu kayit de mbir mu mën a doon mu jafe la sa yaakaar dëkk tas nga nekk ci réew ma gën a baax te mënoo gis benn avancement sa bopp xamal ni réew du dox ay kayit du dox place du dox. billaahi jëmmi doomu aadama mooy dox. waaw jëmmi doomu aadama fu mu mën a nekk maanaam bu seetloo. maanaam ñu wax ko lii ubbi mbiram lii defari mbiram maanaam bu a jëmee dina xam ne yàlla may te wutale suuf bu sutante da nga koo jal dem leen ci ñi yàlla may dem leen ci ñi yàlla may xam-xam ngeen sàkk ci ñoom ñaan qul hal yastawi lazina yaxlamuun wa lazina laa yaxlamuun waxoon naa ko maa ngi koy waxaat ñi am xam-xam ak ñi amul xam-xam mënuñoo yem ba mukk jamono nag dafa doy waar te du te a jag mm. parce que yàllaa ko bind ak jagadi lépp moo tax lépp loo gi faw am ci dugg ñoo xam ne bokkuñ ca lemin fii lay tàggatoo li ma bëgg nga tàggatoo mooy làmb ji sëñ bi faaw ñu waxtaan ci làmb ji. du ma wax ci làmb. yàgg naa la ko wax man du wax ci làmb. Modou Lo Ama Baldé bi sax ma wax man déggoo wax du wax ci làmb. man ña ca nekk nag xeebalu leen la ñu nekk waaye man du man maay wax ci làmb. Lamine. waaw man xeetu xam-xam yi ma yàlla may. jomm naa sax di toog ci ñaan yàlla ci mu fo. man fi mu ne fi ma toll tolluwaay yi ma toll. waaw ma toll. mooy doomu aadama yi nekk ci gàllankoor ak fu mu mën a nekk ci àdduna. Mm-hmm. yomb maa jot waaye yàlla defal leen tawfeex ñu jot ma. waaye ci ay foog yi du ci ñaan mukk. kon lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo waxtu wu nekk rek li may li may tàggatoo mooy li may tàggatoo waxtu wu nekk mooy maa ngi dénk ñépp ñi nekk ci wàll wii nañu ragal yàlla te doomu aadama yi nuy sëqal bu ñu lekk mukk seenu dërëm ci àq ndax borom bi nee na yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi gëm yàlla ah laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatili maanaam bu leen lekk mukk ay alal seen diggante ci neen bu ko defee rek nañu bàyyi xel ci waxi suñu borom jooju waaye lépp lu ñu wax doomu aadama yi itam ni man na loolu yàlla may na leen ci xam-xam boobu mm. rikk rek na na fekk yàlla may leen ci ndax borom bi nee na yéen ñi gëm yàlla li ma na maa la na lan moo tax ngeen wax loo xam ni du ngeen ko def wala sax mënoo leen ko ah man nag foofu laay jaare wax ni mm. yàlla de damay faral di wax ni yàlla mayuma ma yëpp waaye yim ma sédd képp ku ci sëb cër nekk boo ma woowee di nga xam ni yàlla may ah bu ko defee rek ñi may woowee fu nekk naan jëflante nag seen jiw jëflante nag seen jiw bari naan kenn xamul nun toll waaye nañu xam ni ku yaakaar ni daf leen nax naxu leen ndax ku nekk danga nga ak sa borom ba yaakaar ni yow rek la bindoon te gis nga diggante aqi doomu aadama ak moroom doomu aadamaam yoonu yàlla nekku ci moo tax nañuy bàyyi xel ci loolu am na solo lool am na solo lool lool lool lool daal li am solo daal te mat a bàyyi xel mooy aaya bi mu mujj wàcc ci alquranul karim te aaya boobu moom moom moo di wattaqu yawman turjahoona fii ila allah summa tuwaffa kullu nafsin maa kasabat wa hum laa yuzlamuun yàlla mu ni ragal leen bis boo xamante ne si moo ngi ñëw ca kanam bis booba nag ñëppay faatu te ku ci nekk kem la nga jëfoon rek laa lay fay oh. moo tax euh, képp kuy bàyyi xel loolu booy jëflanteeg sa morom ak fu mu mën a nekk ci adduna bu soobee yàlla da nga sédd ak yàlla ak yàlla jooju sa digg ak sa borom waaye bàyyi xel mis boobu ah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wala sax wasalaamu ala man ittabaxal huda loolu laa baaxoo di tàggoo dama daan ñaanal ñëpp yërmande yàlla waaye ku mel ni kii nga xamee ne moom lañ teg ci boppu réew mi te wax dëgg yàlla moo sonnoon lool ci ñu ko samp waaw sonn naa lool ci ñu ko samp yàlla seer na ko mu war ñu nag mm-hmm. waaye inna allaha la yahdi kaydal xaa'iniin yàlla du sottil mukk pexey war way war ñi te ragalal na ko mujj gu ñaaw mujj gu ñaaw a ñaaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa waxi sëñ aboo benn la moo tax bu waxee rek ba pare dañ naan li sëñ aboo wax nañ ko bàyyi xel bari na boo xamante ni bu waxee dañuy dem une semaine après gis ni li mu wax méngoo nag la xew ci actualité looloo waral nag aloo Sénégal du bëgg semaine di jàll te ñëwul ci moom mu wax ñu li ñuy xaar te lañuy ñuy jaar ma wax leen ngeen xaar ma beneen émission jërë ngeen jëf